Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. ñu ngi ci biir marché bi ñu ngi ni yegg camp pénal fii nga xamante ne fii la ñu denc Guy Marius Sagna ngeen gis population bi gën a génn di yuuxu pour ñu libérer Guy Marius Sagna mais tamit ñi ngi laajte pour ñu jàpp Aliou Sall mi nga xam ne rakk Macky Sall la ba tey ñu xool ambiance boobu. kaw dafay génn mu kaw ci kaw a kaw waaw waaw wax la ci kaw. Dalfa Nguène Dalfa Nguène Guy Marius Dalfa Nguène vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.